dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyee xëyandoo yéenekaay gii di réew mi ko quotidien mu ñu xamal naan ñu kiin bi nga xam ne moom lañu doon ŋawtu ŋawtee ci réew mi di ko ŋawtu ŋawtee ci àdduna bi jamono ji nag dañ ko bëgg a teg ni dege yéenekaay gi nee na waa OMS ñoom nag li ñuy sàkk mooy kiin bi ñu bàyyi ko ndax bëri na ay études yoo xam ne maanaam def nañ ko si te gis nañ ne la ñu doon xaar ci moom maanaam nekku ca yéenekaay gi mu ñu xamal naan ñu mbaadu chloroquine ci boppam mooy déranger ndax chloroquine maanaam def nag ay résultats yoo xamante ni mën nañu see teg loxo journal bi nee na nag Didier Raoult moom la mu xamle nee na chloroquine ba léegi maanaam kenn mënul wax ne du fa jàngoroy coronavirus yéen kaay gi mu ñu xamal laan ñu en tout cas li am ba des daal soo mooy tuule nag Sénégal dina ci daal di deltu ginnaaw ndax na ay dogal yoo xamante ni bu ko ñoo njort ne maanaam Sénégal dina ko jël yéen kaay gi di réew mi ko dëjee moo ci xëy di si def ab jàngata yéen kaay gi de l'Observateur ak La Tribune Vox Populi L'As Sud Quotidien yéen kaay yëpp di ñu ak jabaram ak sëfóoram ne woppi coronavirus yéen a kaay gi nee na ñaareelam bii di Aysata te muy liggéeyi ARTP bokk na ci kii amee coronavirus yéen a kaay gi nee na ñoom ñëpp jamono ci maanaam ñoo ngi leen yóbbu opital dalal jàmm dalal leen fa bëri na tamit ñoo xamante ni maanaam daat nañ leen di quarantaine journal bi nee na njabootug sàll sàll gi amee nañu woppi coronavirus yéen a kaay gi di réew mi ko di jen xëy ci jàngalekat yi nga xam ne maanaam gis nañ leen ni ki démb ñoom ñëpp ñu gurgur leen war leen a génne Ndakaaru ngir ñu dem jàngale ji ñaari fan ci weeru juin yéen Arma consulting bi nee na la ñu gis ca terminus liberté 5 maanaam dalul xel ndax ay jafe-jafe neen la jàngalekat yi amee yéen a kaay gi nee na ay ka communautaire soo moytuwulee mën na faa amee yéen a kaay gi du l'observateur Abdoulaye Ndoye bu keseen so la mu xamle nee na état bu Sénégal mooy responsable du Talla mi ñu denk njàng mu digg doomu mi ak maître Omar Youm mi ñu denk wallu dem bi ak dikk bi ñoom bu doon examen na nañoo wax ne dañoo lajje yéen a kaay gi di source a mu ñu xamal naa ñu niki démb jàngalekat yeeka buuxante ba xëccoo bi nga xam ne maanaam moom la ñu nekkee woon sore wu ñu woon ak ñoo xam ne dañu leen a dugal maanaam ci ak gétt ak gétt nag mooy fi ñu dugal xar yeeg nag yeeg mbaam yi yéen a kaay gi nee na Cheikh Omar Anne nee na lépp loo xamante ni jëm na ci année blanche maanaam jërul ñu koy wax ci réew mi ndax du am ci réewum Sénégal yéen a kaay gi mu ñu xam lan ñu en tout cas li am ba des dese yi jamono ji maanaam ñi faatu ma ngi gën di takkarnaase ak tiitaange daf ca am ndax ba Macky Sall waxee ne na ñu dund ak jàngoro ji booba ak léegi lu toll ci fukk ak juróom-ñeent ci ay nit amee nañu woppi coronavirus démb am na ñaar ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan journal bi di réew mi quotidien nee na lu toll ci fukk ak juróom-ñett ci ay cas grave ji am na yéen kaay gi di sud quotidien moom ba tey bàyyiwut jàngalekat yeek doxalin wi nga xamante ni moom lañ doxalee ni ki démb nee na départ sans barrière maanaam jàngalekat yi nga xam ne ñoom lañ yaakaaroon ne bu ñu demee danañu aar xale yi jàngalekat yooyee la ñu gis ñuy buuxante ñoom ñëpp dajaloo te dañu koy tere yéen kaay gi di la turbine mu ñu xam naa ñu ak réeroo daal dinay am ku jégi ak Macky Sall mi nga xamante ni ni woowoon na leen ba mbir mi doog di commencé ñoom ñëpp nag ñu daal di booloo la nga xamante nag mu leen xaajale bokk na ci Mansour Faye mi nga xam ne moom la ñuy tuumal ne ak njuuj njaaje ko giraawale ki njombe ki tooxidoona daf koo def ci marché yeeg ni nga xam ne moom la jindee ceeb beeg ni mu ko séddale beneen bi nga xamante ni moo xaajale Macky Sall ku bokk na ci décret président honoraire bi nga xamante ni moom la ñu bëgg a def ñi jiite woon conseil économique social environnemental yéen kaay gi nee na bëri na ñoo xamante ni saisir nañ yoon journal bi de la beek policiers yi nga xam ne maanaam génne woon nañ leen ci mbedd mi seeni i prime seeni seen bi ñu ko xoolee kenn ku nekk sept mille cent franc nga am mu nekk loo xamante ni lu doy waar la waa témoin bi ñu laajee biro de relations publiques nangu wuñoo yëy ci mbir mi am na ab brigadier boo xamante ni nee na policiers yi jamono ji maanaam farlu ga nga xamante ni moom la lañ doon def jamono ji bàyyi nañu ko yéen a kaay gi am mu ñu xamal naa ñu chauffeur yi jamono ji lu ñu bëgg maanaam mooy gare routière yi ñu daal di koy ubbi bam na wàng dem bi ak dikk bi mën a am ndax jamono ji yi ñoom sonn nañ ba maana day taali Sud Quotidien mu ñu xamal laal ñu ñi nga xam ne ñoo sonn ci réew mi te nit ñi fàtte leen mooy ñi nga xam ne dañoo amee ay jàngoro nekk ci yeneen région yi war a ñëw Dakar faju ji te nag amuñu lu leen indi ndax li nga xam ne mooy état d'urgence beek interurbain bi nga xam ne dañu ko tëcc bëri na ay malaat yu nekk ci yeneen région jamono ji maanaam seeni rendez-vous dañu ko annulé loole nag maanaam mënut a jur jàmm yéen a kaay gi nee na am na benn jigéen boo xam ne da doon sëyi waaye nag moom ak ñi ko doon topp ñëpp ci couvre leen a arrêté yóbbu leen kaso yéen kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal naan ñu Samba Sine ñu gën koo xam ci ko Kouthia te mu amee woon woppi coronavirus xëy na di wax nee na nekkutoon réanimation maanaam bokkutoon ci cas grave yi wax na ne amee wutoon diabète te journaliste yi bu ñuy bind na ñu gëstu li ñuy bind ñu fekkaat ko ci libération la mu xamle nee na quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci Sénégal yi ndeke dañu ko bëgg loolee nee na ab sondage la boo xam ne tey bu laajoon réew mi mën nañu ko jox réew mi nee na église bi sax organiser nañ ab messe ngir fitnaal ko yéen a kaay gii la témoin ñu fekk fa àlla jeen bu inaakuwaa yeesal la mu xam le nee na Idi Thiam dafa wor mbooleem koo xamante ni ab commerçant nga ci Sénégal jëm ci marché yi ñu ko joxoon wàllum diw gi ak wàllum suukar si yéen a kaay gii de Esat mu ñu xamal laan ñu mbay ñaa jamono ji ma ngi ci ay giita ngaas ak club bii di ren la ko waral mooy mañax-mañax yi mbay ñaa nekk ngir bëgg a dem Olympique Marseille yéen a kaay gii de sunu làmb ñu fekk fa bàyyu Balla Gaye numéro 2 di Double la mu xam le nee na Aliou Sarr bi jiite CNG su ma doon mooma dem sama yoon waaye nag Aliou saar ci boppam ni muy communiquer ak askan wi maanaam moo baaxul